ginnaaw ab jàmmarloo bu doxoon ci diggante nappkatu yaraax yi ak waa Guet Ndar ba am ay gaal yu ñu taal ak yenn ci seeni matériel am ñu ci am ay gaañu gaañu yu metti lu nu mel nag dara waralu ko lu dut ay gaalu fele-fele yu Guet Ndar yi doon jëfandikoo ba tax nappkatu yaraax yi jàppante ak ñoom mu nekk lu doy waar ba tax yenn ci ay autorité teew fa ku ci mel ni honorable député Fatou juuf maire bu Hann Bel-Air Meng ak polis ndax daanaka sax ñoom ñoo tas bi la jàmmaarloo Matar Diaw premier adjoint au maire bu Hann Bel-Air massawu ñi nga xam ne si dal na leen parce que am nañ si gaañu ba ñu ñëw ci hôpital bi may sant monsieur maire parce que bi mu ci hôpital bi seet leen dafa jël en charge tous tous les frais médicaux et c'est ce normal mu jël ko en charge beneen bi aussi di massawu ñi nga xam ne si aussi ñoom la seen matériel yàqu ñu koy wax suñu mbokk Guet Ndar yi et loolu aussi dama koy ñaawlu di ko condamner en tant que maire parce que ñun santuñu kenn mu xeex santuñu kenn mu xuloo dëkku yoon la ñu nekk suñ la defee lu la naqadi ñëwal ci autorité yi parce que démb bu mu amee préfet may sant le sous-préfet du département de l'arrondissement de Grand Dakar bu baax a baax le commandant du corps urbain et le command et le commandant de brigade de Hann démb wax dëgg yàlla taxaw nañu ñoom ñoo mujj ñëw ba ñu disperser foule bi avec escadron gendarmerie et waa LG yi mbaaw lépp loolu mosul am ci yaraax comme li muy wax judd nañu ba toll ni ñu toll mosuñu gis send de violence bu am comme bi amoon démb loolu nag ñu koy métti lu bu baax a baax di ko naqul di wax ni plus jamais ça parce que lii bi bi ñu commencé jël ay mesures yi dañu ñëw monsieur le maire ñëw woote ñu woo préfet préfet ñëw fekk ñu foofu su bu mu ñu fekkee foofu ñu waxtaan ñu jël ay mesures jël nañu ay mesures ba génn ne depuis bërki démb heure bi démb fan yi yëpp altine ba léegi ñuy tëj quai de pêche parce que duñ ñu woon samedi à partir de vendredi ñëpp lépp liy gargote cest à kiy jaay añ wala ngay jaay ndékki wala leneen dangay ngay arrêté bu ñu leen waxee waa KDP sensibiliser ñu arrêté képp ki nga xam si danga amoon sa kees parce que fii nag dëkk bi aussi jigéen ñi gàcce ngalaama les femmes de Hann parce que dañuy taxaw ñoom ñooy dem KDP nekk fa 8 heures ba 23 heures ñu leen nañ leen bàyyi ñaari fan ñoom ñu jaay bu ñu ba pare à partir de lundi arrêté préfectoral génn ñu tëj ko bu ñu ko tëjee ñu génnee kii bi jox ci maire jox si population bi jox si jox si waa quai de pêche donc loolu aussi waroon na mën a doy seulement mais malheureusement xale yi aussi il faut que ñu géem a am retenu nit du fajal boppam te aussi xale dafay am yar comme ni ko góor gi Thierno Gueye waxee woon démb ak bërki démb dëkk bi mag mooy jiitu mag du fi ngee xale mu rakam mukk du mas am parce que loolu enseignement la bu ñu jëloon seen sëriñ seen Babacar si donc loolu aussi dafay continuer mooy lan mooy ku am kudd doo ku am kudd doo lakk am ngeen genre mairie gendarmerie ngi fi keneen ak keneen a ngi fi bu yooyu amee da ngeen di ñëw ngeen waxtaan mbaal yi nag am na lu ñu tere woon ma ngi bëgg yàgg ñu ne woon filament li nga xam ne si mbaalu caas yi la dafay yàq géej te loolu képp kuy dem géej xam nga ko loolu aussi itam vraiment jaaduwul mais ak lu mu ñàkk-ñàkk jaadu xale yi du ñoom ñooy régler loolu mën nañu ñëw nag séisir autorité yi ne yéen kat yéen a ngi bàyyi lii ma ngi ñu ngi mbaal ñu ngi continuer def su ngeen deful lii ak lii ak lii ëllëg bu ëllëg autorité tëlee bu boobaa ñoom ñu seet mais ak quelle que soit la situation ñu fajal seen bopp man loolu moo indi histoire bi parce que xale yi daje nañu ñoo tëj quai de bi du ko defar mais buñ koy defar aussi itam ñële ñuy wax parce que gëndar yooyu ñu dem yàq seen matériel li ci ëpp ñooñu fii la ñu dëkk ci dëkk bi li may wax ñii fi dëkk xam nañ ko parce que dañu fi am ay doom am fi jë seen pirogue yi ñu immatriculé parce que zone boo dem pêcheurs yaa ngi ni la nga dem si benn zone nga immatriculé sa pirogue si zone boobu am nga fa droit de pêche mais nag mesure bi préfet jël dafa jox CLPA jox chef de poste bi mesure kii instruction ni leen à partir d'aujourd'hui demal leen ngeen génneel ma fichier bi gaal yi nga xam si dañ leen ñoom ñëpp dañ leen immatriculé an am nañu droit pêcher fi comme yéen ñëpp gaal gu ñu fi kiiwul nag bu boobaa man dinaa fexe mu dellu beneen bi nag lu indi coow li lépp lu ñu tiital mooy alxames si guddi dañu gis ay mbaalu fele-fele yu bare ñëw ci dëkk bi loolu moo jaaduwul parce que alxames période la bi nga xam si duñu ku nekk toogal sa kër ku nekk toogal sa dëkk ñu interdire ko transporteur bi interdire ko ñeneen voyager wuñu avion jëlatuñu ba jëlatuñu mais pourquoi man mënuma accepter wax dëgg yàlla en tant que maire nag damay protéger sama quai de damay protéger samay population damay protéger samay pêcheurs parce que man loolu d'accord naa si et maire d'accord na si ñun ñëpp d'accord na mooy ñu fi ñëwoon si semaine bi passé ñooñu ñu def le tout ba ñu ñibbiwaat seen dëkk saa moom du question wu dàqaleen du ko parce que duñ ne ku nekk toogal sa kër bu ñu nee nag toogal sa kër toogal sa kër ba affaire yi jeex. consensus consensus ñu ngi waxtaan parce que démb wax dëgg yàlla on a pris notre responsabilité madame l'honorable ak maire ak préfet commandant corps urbain ñun ñëpp presque si mairie bi la ñuy yendu waxtaan ba ngoon bu ñuy waxtaan wax dëgg yàlla nag joxante nañu loxo. mais joxante ko loxo bi est-ce que sincère na wala sincère je donne ma langue au chat mais beneen bi ci am solo mooy waxtaan wi am na te tey waxtaan boobu aussi monsieur le maire neen daf koy continuer en tout cas ñun mairie la ñu mairie de proximité la lépp lu ñuy def tant suñu population amul jàmm du ñu ñëw parce que man mi depuis une semaine dama tëj sama bureau kii dafa tëj bureau keneen ak keneen tëj bureau am xam lan moo tax c'est lii intérêt ànd dañ si teg suñu bakkan. mu nekk di naqarloo ndax waaj gi ndare war nañoo napp ci géej gi naam sax yooyu mbaal fele-fele dañ ko fay tere waaye warul tax benn yoon ñu jàppante ak ñoom ba am ñu ci am ay gaañu gaañu ak yenn ay matériel di ci yàqu ndax ñoom ñëpp ñoo bokk yaraax ba tax ñoom ci seen biir waxtaan nañu ci mairie ba ngir ñoom ñëpp amaat jàmm